gannaaw ba ndaw dëkk bi di njega ñaaw ak ñi fa yor wàllum nawetaan boycotté stade ba ci ab coowal suuf bu fa amoon ba tax at bi nawetaan amu fa kenn ci ndawal dëkk ba amaloon fa ab tournoi de football ngir ndaw yi bañ a yëg ñàkkum nawetaan ni euh, bi dañ ko organiser parce que dañu dem ba au dernier amuñu nawetaan ñu ne léegi pourquoi pas ñu organiser tournoi boo xam ne dinañu permettre tey ñu mën a sauver jeunesse bi parce que lu doon xew su xewul rek day indi benn vide motax ñu xalaat ni suñu mbëbëtee lool dina dina jaar yoon. tournoi bobu ñu jël ko daal di koy parrainé ki di ministre Omar Youm koko fa teewaloon di docteur Taning Sen contane lool ci téw bam fa téw teew. Euh, ay dara nga xamné consultant bu mag la ci football xam nañ ko ci plateau Sénégal yi di doomu Njagañaaw mo tok xalaat ne jeune Njagañaaw yi comme amuñu nawétan vraiment na jéem fexé fexe defal leen tournoi jéem out ut parrain bi ko xalaaté aussi mu dem ci ministre Omar Youm. vraiment mu nangul ñu rapidement pour parrainer jeunes yi donc moo tax tey monsieur Ibrahima Niass fii ñëw teewal ko ak man vraiment di wax ci turu ministre di féliciter ñaari équipe yi di leen ñaanal aussi que le meilleur gagne mais aussi vraiment di kontaan pour ministre si loo yu nga xam jagle na ko jeune Njagañaaw. ki di président zone bi moom mu ngi ñaax autorité yi ngir ñu fexe ba nawetaan daal di dellu si fële ca Njagañaaw.